الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ngalla way jullit foo toll del sant yàlla ci xéewalam yi nga xam ne mënoo koo pekk yàlla moomu nga xam ne moo teral jullit ñi ci may leen diina ju màgg ji muy diine lislaam heure bu jullit ñi jógee bëgg a uti teddaange ci feneen fu dul lislaam yàlla dana leen delloo suufeel leen ñu ngi seede na moom dong yeyoo ñu koy jaamu ñu seede na Muhammad ak jaamam la woon bu mu yónni woon ci ñun di ñaan yàlla julli ci moom moom njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin gannaaw loolu mbokk jullit xam leen ne xiiwulu yàlla buñ koy wax ba ca gën a màgg ba ca jara gën a toppatoo mooy li nga xam ne mooy xiiwalug lislaam lan mooy lislaam mooy la yàlla joxoon ab yenentam sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal ko ay saabaam tàggat leen ca dem bàyyi leen ca lool dong mooy lislaam leneen luñ ca dolli bokku ca mbokk gis nañu ne li nga xam ne moom mooy diine lislaam boobu suñu demee dañuy fekk mboolem problème bu doomu aadama waroon a am ci kaw suuf islaam woon na ko fan lay jaar ba régler ko li l'islam jëkk a réglé mooy problème mu pas-pas problème mu ngëm nga xam ne mooy li gën a màgg ci lu doomu aadama yi di juyoo islam ñëw na fekk doomu aadama yi réer di jaamu seeni bànneex ñee ngay jaamu garab ñee di jaamu xeer ñee di jaamu ay bàmmeel ñee di jaamu ay malaaka ñee di jaamu ay jinne islam ñëw yóbbu leen boole leen ca pas-pas bu wér ba ca mooy kaddu laa ilaha illa allah xam leen na yàlla dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu ci noonu la leen goreele ci jaamu la leen lu dul yàlla yëgloo leen ne déedéet bindiw yi seeni moroomi jaam lañu amaluñ leen njëriñ amaluñ leen lor malaaka yi seen moroomi jaam lañu amaluñ leen njëriñ amaluñ leen lor jinne yi seen moroomi jaam lañu amaluñ leen njëriñ amaluñ leen lor waaye yéen seen biir it képp ku ñuy màggal sa moroomu jaam dong la amalu la njëriñ amalu la lor lii di njëriñ ak lor nañ koy ah sàkku ci borom bi subhanahu wa taala boole leen ci yeneen te bam yónni ci ñoom mu war a nekk seen royukaay xam leen mi ñuy jaamu yàlla ñoom ñépp mu tënk leen ña ca weex ak ña ca ñuul ña nga xamee ni nii dañ caa doon ay arab wala ñuy lakk weneen i làng suñu borom yàlla gën a leen te ya nekkoon seen biir xeet bu ne jàpp na yaa gën sa bopp waa waaso waa làng bu ne jàpp na yaa gën ñeneen suñu borom yàlla xamal leen ne dédd noonu waaye ñi nga xam ne it dañoo jàppoon ne ñoom dañoo suufe dañoo jàpp ne yàlla daa def si ñoom tekkiwuñu dara ba wallahi kenn ci jàkk ji ñu ngi may nettali benn collègue am bu koy wax naan ko ah nañ muñu rek suñu pou bi moo amul valeur mbokk loolu musiba mënul passé loolu suñu borom yàlla moo ñu bind moo ñu couleur jaunal ñee weexal ñee daal di ñuulal ñee waaye mu bëgg ñu gëm ca dund ne ki gën a tedd ci ñun mooy ki gën a ragal yàlla nit ku ñuul ki du suufeel boppam ci kanamu tubaab waaye arab bi it du suufeel boppam ci kanamu ku weex ay ñun ñépp ki gën mooy ki gën a ragal yàlla islaam wane ko ci dundinam kii nga xam ne mooy bilaal ab jaam la bu jóge woon ci Éthiopie kii nga xam ne suhaybu benn jaam la woon bu jóge woon ca ruum kii nga xam ne mooy salmaan ma nga jóge woon ca faris ñu ñëw fekki si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci waa makka waa Quraysh yooyu nga xam ne jàppoon nañu ne ñoom ñooy ñi gën ci lu yàlla bind ci kaw suuf waaye da ngay gis ne ñooñu bañ tuubee dugg ci lislaam yàlla yëkkati seen i daraja islaam yëkkati seen i daraja ñu bokkoon ci ñi gën ci sahaaba yi suñu borom yàlla wëlbati ko ci mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xam ne ñooy waa Quraysh yooyu mu jël kii di abi jëral ŋàññi ko ay ŋàññi yu bëri ci téere bu tedd bi waaye ki nga xam ne ku jegewal suñu yonent la muy abi lahab saar wañ koy ŋàññe gone yi gën a tuuti ca daara ja mën nañ ko tari tabbat yada abi lahabin wa tabb ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب على كل حال سن برام نانيكو ناني سخنان سا أم جميل nga xam ne ci aristocrate yi gënoon a màgg ci Makka ca la bokk waaye suñu borom ŋaññi leen suufal leen na safar lañ jëm loolee di lu yàlla leeral ci ne kat ngal la waay yéen ñu jàppoon da ngeen a suufi siggi leen te xam ne ñu tedd ngeen ca yàlla su leen da ngeen doon ñu gëm mbokk lislaam day mi ngi nii goreel doomu aadama yi ci ne bu ñu jàqee amuñu keneen ku ñuy sëggal seen loos ku dul seen borom jalla waala bu ñu jaaxlee amul kenn ku ñuy toroxlul ku dul seen borom jalla waala suñu borom mu ne mooy yéen doomu aadama yi a arbaabun mutafarriquuna xayrun am illahu alwahidu alqahar ndax ki nga xam ne daa yaakaar lu bari lu tasaaroo dana yem ak ki yaakaar benn yàlla bi nga xam ne moo not lépp al waaxid mooy kenn alqahaar mooy ki nga xam ne dara tewu ko lu ne mën na ko jalla wa ala mbokk lii day da ngay gis ne mooy lañu lislaam fekk daa di ñu cay yóbbu boole waat suñuy sappe suñu borom mu ne ay yéen jurit ñi xam leen ne seen programme xam leen ne seen parti xam leen ne seen tariqa xam leen ne benn yoon rek la ca mooy ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal bu leen dee lu dul ngeen jébbalul ko waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu yéen ñépp xam leen ne alquran mooy seen constitution alquran moom mooy seen règlement intérieur alquran mooy seen doxalin lépp loo xam ne xalaatu ni doomu aadama am nañ ko tey ci kaw suuf julit ñi ñoom la nga xam ne mooy seen yoon mooy téerab yàlla boobu nga xam ne la koy leeral mooy sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam loolu mooy delloo julit ñi boole leen ñu xam ne ñoom ñëpp benn jëmm lañu benn bopp lañu suñu borom mu ne seen ummaa ngi nii doon benn umma man rek may seen borom na ngeen ma jaamu mbokk lislaam yi ngi nii régleel ñu li nga xam ne moom mooy problème mu jigéen ndax xam ngeen ne doomu aadama yi ba leen yàlla bindee def leen góor yi ci jigéen dafa amoon benn noggatu gu mag a mag goo xam ne ceddoog penku ak ceddoog sow arab yaag tubaab yaag nit ñi ñuul ña ñépp amoon nañ ko ci jigéen suufeel jigéen toroxal jigéen amul benn àq boo xam ne jigéen am na ko jigéen daawul donn bal moom dañ ko daan donn moom ci boppam amma l'islam bi mu ñëwee mu ne déedéet jigéen nañ koy jox cër ca la nga xam ne baayam ya bana ko nañ koy jox cër ca la nga xamee ne nii ayu ay jegeñaaleem ba banañu ko bal l'islam daa di daganal ci moom ne mën naa liggéey mën naa am alal bal l'islam ne xatta bu dee dañ koy donn bala ñoo donn nañ ko fayal ay borom kon jigéen am na droit sax lebi alal yoo xam ne da koy jëfandikoo nañ génne ay dénkaaneem ay testament muy wasiyaam ay jigéen am na droit ne sama alal ji su ma dee nañ ci def nangam ak nangam suñu borom nee na bala ñu koy miraas nañ génne loolu loolu lépp teewul islam loolu mu may jigéen yépp mu ne nag yéen góor ñi yéen a ko war a yor jigéen bu amagul jëkkër lii di dundam dëkkuwaayam yàlla laan ko gàll ay way juram su fa war a jur nekkul man ko gàll ay frère am ak ay jegeñaaleem ñu war koo taxaw war koo sàmm ci benn loxo bu bon ba nga yegsi ci moom ba baa ñuy gis góor bu ñu wóolu jël ko teg ko ci loxoom góor googu it bu ñu demee suñu borom yàlla subhanahu wa taala sant ko ne ko kii ñu teg ci sa loxo day na nga ko yor yor bu maandu suñu borom yàlla ne man ngeen a takk benn ba ñaar ba ñett ba ñeent su ngeen jàppee ne mu ñu leen a maandu yem leen ci benn bépp lor boo xamee ni nii yaa ngi ko bëgg a jëmali ci soxna si sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na xam leen ne yàlla moo leen ëpp kattan ca seen kaw yi soxna mbokk nii la lislaam gisee jigéen sunu yonente alayhi salatu wasalaam mu ne maa ngi leen di dénk ci jigéen ñi yiw loolu it moo tax ba fokk ñuy góorgóorlu bàyyi war xel sunu njaboot gu jigéen gi xam leen ne échec ub société ma ngay tàmbalee te ay jigéenam yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na njëlbeen fitna bani israil mooy bañ demee ba contrôlé tuñu seeni jigéen jigéen ña di solo lu leen neex di leen mel lu leen neex di dugg fu leen neex loolee da ngay gis ne noonu lislaam yi xam nañ ko moo tax ba heure bu ñu bëggee yàq lislaam yoon ba ñuy jëkk a jaar mooy futti suñuy jigéen teqale leen ak muuraay yi génne leen ci société bi ñu doon ñoo xam ne dañuy woote ci fitna lii mbokk da ngeen di góorgóorlu bàyyi wat ci xel mbokk lislaam yi ngi nii régler la nga xam ne mooy problème mu ñàkk mbokk lislaam mooy diine boo xam ne dafa farataal ci am amu ña nga xam ne dañoo am ne leen ne chaque année ci loo xam ne farata la sa alal joojee bu dee looy bay la xaaj ko fukki xaaj benn xaaj ba jox ko fuqaraaw yi alal la joo denc ca banque ya wala ca coffre ya xaaj ko ñeen fukki xaaj loolee nga jox ko fuqaraaw yi looloo nekk farata la boo xam ne même bu doon te ne kaddu lislaam fi nekk képp ku ñu yëg ne doo génne zakat dañ koy ñëw jël ko ci yow par force même bu jaree ñu xeex ak yow même bu jaree nga dee ca it daañ ko jël par force comme ni nga xamee ni nii noonu la ko aboubacar defe woon ni la l'islam gisee ñu war koo jël jox ko fuqaraaw yi ngir équilibre ak jàmm am ci biir société bi waaye ci noonu itamit la ñuy gisee islam ñaaxit ne bi bépp ndaw bu mën a liggéeyi nga la waay jógal liggéey ca moo di ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne fa ida qudiyat salaati fantashiru fi l ardi wabtahu min fadlillah su ngeen ñëwee julli ba pare tasaaroo leen ngeen sakku ji la nga xam ne mooy ngineelu yàlla ba Abu Bakar ba Omar ibn Khattab su ma saan gis jeunes yoo xam ne dañuy dajale rek toog ci jàkka ji mu ne leen waaw yéen lan ngeen nar a dundee fan ngeen gisee asamaan di taw or ak xaalis dóor leen ne leen dem leen ca marché ba ngeen sabab lu ji lii mbokk da ngay gis ne mooy la l'islam tëral ci ne ah fokk lii di commerce wala boog li nga xam ne mooy ak digg doomu am ca li nga xam ne mooy société bi sunu yeneen ci alayhi salaam ne ndaw ñu bu leen xeeb benn liggéey kenn ci yéen mu demoon ca àll ba góor fa matt jaay ko am lu mu dundee ba bañ a ñaan kenn nee na loolu moo gën sax mu wër di ñaan loolu mbokk da ngay gis ne lan cay déggee rek mooy yow fexeel ba bul xeeb benn liggéey am naa ci nga xam ne gis nañu ne moom kat munul nekk di liggéey moom kat dafa doon am ay gàllankoor su boobaa islam prévoir loo xam ne nii dañ ko koy jox ci zakat bi ay yéen mbokk julit xam leen ni l'islam day bi mu ñëwee réglé na problème mu jaxasoo diggante góor ñi ak jigéen loolu nga xam ne amul lenn lu gën a mën a yàq ak société ci ñuy jaxasoo fu ñu wurta jaxasoo yàlla moo def góor soxla jigéen jigéen soxla góor ngir société bi di mën a am njaboot bi continuer dundal ci kaw suuf mais yàlla bàyyiwu leen comme ni mu bàyyee ba yu may déedéet da ko wutal ay yoon suñu borom yàlla ne na ngeen fexe ba daa di dugal ci sëy seen mboole mi célibataire góor ak jigéen na ngeen ci dugal xatta seeni jaam su dee ne dañoo doon ñu ñàkkit yàlla dana leen woomalal ci ay wërsëgam lii nag gannaaw ba mu ne ñi nga xam ne amaguñu kattan bu ñu duggee ci biir sëy nga la waay nañu fegu ba baa yàlla di leen indil ay xéewalam di leen booleeg jëkkër wala mu boole leen ak soxna ee yéen ndaw ñi ca yonent bi alayhi salaam li mu doon wax képp ci yéen ko mën a denc soxna na dem uti soxna bu mu denc koo xam ne amagul kattan ci denc soxna ngallaawaay nay jël ay bis di ko woor ngiree loolu dox digganteem ak mu koy faggu ci su xaram suñu borom yàlla yimul foofu mu ne ngallaawaay bu leen jege njaaloo yàlla waxul bu leen njaaloo waaye def na bu leen jege njaaloo ay moytu leen lépp loo xam ne moyen la bu mën a indi njaaloo commencé mooy ay yow soxna si muural sa awra bul mel ne fas woo xam ne da ngay wëndeelu ci mbedd mi góor ñépp teg sa bopp ci sa taar loolee mën leen a xëcc waaye it mu ne yéen góor ñi ak yéen jigéen ñi na ngeen di sajj seeni bët bu leen nekk di xool loo xam ne nii lu xaram la bul xool jigéenu jaambur ci bànneex bul nekk di xool góoru jaambur ci bànneex araamal jigéen amul droit di tukki lu dul dafa ànd ak koo xam ne sëy daa xaram ci moom araamal la nga xam ne mooy jaxasoo ak góor ak jigéen araamal la nga xam ne mooy wéete góor ak jigéen lii lépp ngiree ñu mën a sori njaaloo suñu borom yàlla mun a moytu leen sori leen njaaloo ndax ñaawteef la ca yoon la boo xam ne yoon bu bon la ay yéen mbokk julit li nga xam ne tey moo lëmbe adduna bi mooy li ñuy tuddee wàllu sécurité sunu président yi barki démb boo njaay na nga daje Mali di wax problème sécurité mbokk na ngeen xam ne l'islam bokk na solution yi gën a màgg yu mu indi ci kaw suuf mooy solution indi jàmm ci kaw suuf jàmm joojee ana ban yoon la ko l'islam jëkk a réglé mooy gëmloo nit ñi seen boroom mbokk ki gëm yàlla ki xam ne alaxira am na ku mel nii da ngay gis ne du xalaat abadan lor moroomu doomu aadamaam bal du xalaat abadan lor ay bàyyuma waxumaa di lor doomu aadama looloo tax njël beenu indi jàmm ci dëkk bi mooy ñu jàngal nit ñi lan mooy tawxiid gëmloo leen ajjana gëmloo leen sawara gëmloo leen li yàlla teg ci loi ci képp koo xamee ni dafa def na ko sudul noonu ci loolu itamit l'islam indi ne képp koo xam ne dafa ñëw rey nit ki ca moo ko tey rey leen ko rey googu ñu ko rey dana tax ba keneen ko bëggoon a rey xalaat sàmm bakkanam ba du rey islam ne képp koo xam ne dafa dem di njaaloo ci mën a tasaare sida ci dëkk bi mën a dugal ay doomi njaaloo ci famille buñ bokkul ku mel noonu bu dee ne mas naa sëy rey leen ko su dee ne mus a sëy duma leen ko téeméer yar waa ji liggéey alalam sënn ci loolu benn waay jóge fa la ñëw na ko dungaan sàcc ko islam ne ko mel ni dadd leen loxoom mu nekk benn royukaay ci biir société bi ñi nga xam ne dañoo gàddu seen i jaasi ak seen i pistolet di wër di agressé sunu borom yàlla ne bu ngeen leen jàppee dagg leen seen loxo ndeyjoor dagg leen seen tànku càmmooñ wala sax ngeen far leen rey benn yoon mbokk yii yépp da ngay gis ne islam mi ngi koy indi gannaaw ba mu yaree doomu aadama yi tëral ay loi ngir société bi am jàmm ca la nga xamee ni nii mooy en biir kër ya am jàmm ca la nga xamee ne mooy réew ya hatta la nga xamee ni nii moom mooy yéeféer ya islam mayul benn julit nga jóg rek gàddu sa jaasi ne kii yéeféer la da nga koy rey lu dul loo xam ne organisation la am réewum l'islam boo xam ne dañu am buurub l'islam boo xam ne dafa tëral ci règle jihad yoo xam ne dañ cay avertir yéeféer ya waaye bu dul looloo bépp julit boo xam ne nii rey nga ab yéeféer loolee mën na laa xaj ajjana yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne man qatala muahadan faqad harrama allahu alayhi aljanna képp koo xam ne da ngaa gis ku ñu amanteel kóllëre amanteel moom jàmm la doon chrétien la wala juif la yow nga julit nga war a bëgg ku rey ko ku mel noonu xatu ajjana sax du la xeeñ mbokk lii mooy sécurité lii mooy jàmm lii mooy solution bi nga xam ne l'islam indi na ko ca mboolem xalaatkatu adduna bi mënuñoo jamais indi beneen solution boo xam ne dana jege bii wala muy dab bi lii mbokk fokk kon ngeen góorgóorlu bàyyi ci xel ay yéen ndaw ñi xam leen seen diine mi ngi nii di diine l'islam sunu borom yàlla bàyyiwu ci dara amul benn problème booy am lu dul na boo dajee ku xam téereb yàlla bi xam sunna yenenti yàlla bi dana la wax ne lii de la ci lislaam wax ca loolee ci lislaam wax amul beneen doxalin boo xam ne gën naa màgg loolu wala beneen doxalin bu gën a jege loolu suñu borom yàlla mu ne ma farratna fi lkitaabi min cheyin amul lenn loo xam ne bàyyi naa ko ci téere bi inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam alquran jii mooy yóbbu ca melokaan yi nga xam ne mooy gën a màgg ngal la waaye xool leen li ngeen yor doon jàpp xam ne yéen yéen a gën a tedd yéen a war a woo adduna bi ci lislaam moytu leen nekk ay al toppay yéefir yi di solo nañuy solo di xalaat nañuy xalaate topp leen ci nax yiñ leen woowe ay coupe d'Afrique ak coupe du monde ak ay coupe coupe yu dul jeex yooyu yépp dañoo bëgg a détourner seen i xel di l'essentiel waaye xam leen ne seen borom yàlla tagg na leen ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéenay xeet bi gën bu ñu génneel nit ñi yéenay diglu lu baax yéenay teru lu bon loolee julit da koo war a bàyyi xel gannaaw ba fi ngeen toll di leen bàyyi xel ne li gën ci lu ñuy wax mooy téereb yàlla bi waaye njub gi gën a mag ci njub yi mooy naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defe li gën a bon ci mbir yépp mooy loo xam ne dañ koo sos ci diine yàlla ji lépp loo xam ne sos nañ ko ci diine yàlla ji loolee mooy bidaa te bidaa boo gis dafa nekk ak réer yal na yàlla subhanahu wa taala delloo ñu ñun ñépp ñu lislaam gën daa rafeti delloo yal na yàlla xamal ñu suñu diine yal na yàlla wërsëgal ñu dund suñu diine yal na yàlla rey ñu fekk ñi ngi ko jébbalul jalla wa ala yal na yàlla wàcceel ñu jàmm ci suñu réew yi wàcceel ñu jàmm ci suñu njaboot yi wàcce jàmm ci mboolem réew yi jullit yi nga xam ne dañoo nekk ci ay fitna yal na yàlla rafetal suñu mucc yërëmal ñu suñu mboole mi way dawlu barkeelal ñu suñu mboole mi njaboot gi nar a ñëw gannaaw ba yal na yàlla defal ñu tawféex te defal ñu jannatul firdawsi mi suñu wàccuwaay اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين